dama ñëw tey fii ci Louga en tant que doomu Louga yéeg ci micro micro maire Louga pour ñëw vraiment wuy si ci appel bi nga xam ne son excellence le président Macky Sall woote na ko woote askan yëpp bon volonté yëpp ñu ñëw jàppale ko ci askan yi ngir ñu xeex feebar bi nga xam ne mooy coronavirus te nga xam ne ñu ngi lëmbee si euh, jamono ji addina bi ñëw nañ fi nag euh, fan yële am ay matériel yu bëri yu ñu fi joxe woon euh, tey ñu dellusiwaat ñëwaat di ko dolliwaat ndax ñu lenn ñun askan bi Louga amuñu dara lu dul lu bëri ndax président Macky Sall yaakaar naa ne lépp lu dal ci koom askan bi mo wara war a ci taxaw ci te tey ñëpp gis nañ ñu mu taxawee di xeex coronavirus bi pour ñu joggé fi ba faw ci aduna parce que ñëpp xam nañ ne après fi joggé dana mën a jur ay conséquences économiques yoo xamné ne euh, dina sonal suñu suñu suñu suñu suñu suñu dëkk yi nga xamné ne dina nekk en voie de développement kon nag tey askan bi ñun ñëpp ñoo war a jóg ngir coronavirus boobu euh, jóge fii ci jàmm ak ak ak salaam euh, suñu xel mi ngi dem ci suñu mbokk commerçant yi nga xam ne période bi ñu nekk muy période virus bi euh, boo ko xoolee ba xool tey seen ñu doon jaay yëpp wàcc na wàcceeku na mais ñu comprendre rek xam ne yàlla moom bu ñëwee ah ñëw na ñu ñaan yàlla suñu borom moom li nga xam ne mooy tegee balaa di tegee métit mu teggi ko ci lu gën a jàmm te am na yaakaar ne dinañ ko teggi ci lu gën a gaawee ñu sëñ ci mu sëñ askan bu baax a baax a baax a baax